Faty Gueye ne ma papaam ak yaayam mënaluñ ko dara fu ñu ko woowee du ñu ne ah yaa ngi dégg moom tamit andi ay vidéo wax ay la bu ko topp bu ma meree dëgg-dëgg laay gën a tàng dugalaguma dara déedéet li ma dugal ni du cottu ndayam li ma denc ko gën a pire fi mu naan yaayu ndaw si ndaw si bu demee kattante ba pare da koy jox xaalis tabaski yaa ngi dégg tabaski da koy yob xaalis ak korité moo tax bu ko dee katt ci appartement bi wax vidéo yaa ngi nii lii lay def ak yu gën a lii la ma wax déggoo ma de gars yi Adamo du waxat yéen xam ngeen Adamo xam nga bu ma gisee ndeysaan ñiy commentaire naan ko nday yaa fi nekk ñi ngi koy dugal ndax xam ngeen Adamo yéen xam ngeen ne Adamo man fi wat 1600 personnes ñoo may seetaan sama kanam feeñul te su ma neexoon live bi yëg 3000 léegi léegi ci 2000 xam nga ne ko kooku doyewul dara bës. doyewul dara bës naroon naa koo baal sax ku deful di nga jéggalu ah moom mooy vocal di jéggalu de man nag maa dégg ma jéggalu kuy jéggalu man wala moom. kan ngeen dégg mu vocal di jéggalu man la bu dee man la ngeen bindal ma ko wala moom kuy jéggalu man man bu ma neexee fii laay bàyyi live bi léegi léegi bu ma neexee ma ne leen 3000 personnes laa soxla balaa 2000 nga gis 3000 xam nga kooku soxlul bës man miy def ay 21000 vues 32000 vues ci Instagram bi aw ma ci morom Sénégal sama calcul sax boole wu leen ci billahi man américains yi nga may tëkkaleel Wiz Khalifa dem leen ngeen koy xool lu ngeen xool rappeur américains yi xam nga ku nekkul rappeur américain yi nga xam ne duma ma seen morom waxuma laak ñu nekk senegal waay gars yi nan waxante dëgg rappeur américain yi demal ngeen xool seen live ngeen dugg fa rappeur américain yi dugg leen ci seeni layif live nga ñëw ci Adamo ngeen may tëkkaleeg ñu nekk senegal li jëntu ma leen sax du ma leen sax xool il faut ngeen di logique tuuti waaw man dëgg rek waaw dëgg rek moo ma fi bàyyi il faut ñu wax dëgg bu dëgg jotee dañuy wax dëgg naroon naa sa bàyyi mu sedd mais xam nga wax ji dafa bëri vidéo fii wax fii man sama Adamo waxam du bëri léppam preuve la xam ngeen Adamo yéen xam ngeen Adamo Adamo day dugal Adamo day wane ba tey ay ojoom laay teg muy circulé du dëgg ah di teg ay vocalam ngeen di dégg du ma modifier voix du ma teg voix lu kenn ku wax rek laay dugal ku waxul samay néewu ci man loolu laa xam preuve rek dugal preuve yónnee comme gars yi ni ñuy waxee nii toog di wax. déedéet Adama nekkul ci loolu dul kon Sénégalais yi dañ koy weddi di dox man doxuma ci ay jaaxaat non damay ñëw dugalal la ne nit ki moo wax lii dugalal la tegal la fokaalam war la ay preuve man loolu laay job quoi waaw man du ma job comme gars yi ni ni waxee nii di wax rek topp di wax rek déedéet nekkuma ci yooyu waaw man nekkuma ci yooyu quoi lépp day baax waaw léegi nag moom gaa yaa koy jay rek yaa fi nekk ndey nag <laughs> sénégalais yi bëgguñu la di <laughs> barki Serigne Babacar ndey ñu naan la ndey sénégalais yi yow lan war a waxal sax yow mi jël ay vidéo jàmmoor di ma ko yónnee ah yow mi jël ay vidéo jàmmoor di ma ko yónnee naan ma cagala day kattante yéen a ngi imaginer naan ma yaayam ak papam billahi duñu wax parce que lu mu cagatu dem yóbbul leen ko yaay ji bu ko de jox xaalis du wax dara vocal yooyu sax duggagul vocal yooyu yëpp dugalaguma ko waaye sama bopp bi day weddi quoi barki Serigne Babacar Si ay waay Sénégal a jëy nit Sénégal nii lay def ban doxaat bi sa ndey mu toog di xool sanam ndey lii non ndey ndey fi nga dugg baaxul ba ma defee ba ma defee vocal yi dugal say kii rek da ngaa waroon a arrêté waruñoo woon a jay sax naan la ay defal vidéo génnal billahi da ngaa juum da ngaa juum quoi waroo woon a sa topp di wax wala ngay kii nii non a ah, bos bu waxee rek da ngaa war a noppi bu waxee rek xam nga ne ku may envoyé vocal naan ma ah xanaa doo ma seetaan man may xewi yow yaa téye Sénégal dimbali ma ba doo xewi ah xam nga ne kon kooku kooku kooku <laughs> sa waay ndànk côté jaar na fi ah man ñëpp fi lan ma fekk ñiy bës bos yu ndaw yi ñëpp fi lan ma fekk ku ci nekk Dakar naa sa ndey nga féete à côté mera gis ngeen ko fi kuti kuti mbaw mbaw xaju gaaraas woo gis ngeen fi ñu bëri Mera génn na fi ah gis ngeen fi pikiir bi vaccin ak kan ak kan man ku ñëw fi may bàyyi fi may fekk te tey la ga waalo gën a aay live yi man maay monté tuunu ndayam loolu la sénégalais yi def man Adamo maay aj nday live yi ba ay 10K di ko yóbbu ba ay mille kat ndayam ba 32000 amul keneen ku koy def man Adamo maay toog ci live ma ne 3 minutes laa soxla 3000 personnes man Adamo maay toog ci live ma ne 2 minutes 5000. am ma morom sa man aw ma morom mais dëgg laay wax affaire bu du soxor ak njàqalaate déedéet moom ngeen war a waxal moom mi jël vidéo jàmmoor yónnee ma ko bu ndaw si wëññeekoo fayu ndaw si bu wëññeekoo fayu sa waay na gaay nan waxante dëgg ah, ndaw si wëññeekoo tourné wax ma wax fayu ah yi nan waxante dëgg nan ah gaay yi nan leen di waxante dëgg <laughs> il faut ñuy waxante dëgg waaw nay leer ok gars yi lu mu cagatu dem yóbbul leen ko yaay ji ko dee jox du wax dara vocal yooyu sax duggagul yooyu yëpp dugalaguma ko <laughs> sa bopp bi day weddi quoi barki Serigne a jëy nit Sénégal nii lay def ban doxaat bi sa ndey mu toog di xool sanam ndey lii non ndey ndey fi nga dugg baaxul ba ma defee ba ma defee vocal yi dugal say kii rek da ngaa waroon a arrêté waruñoo woon a jay sax naan la ay defal vidéo génnal billahi da ngaa juum da ngaa juum quoi waroo woon sa topp di wax wala ngay kii nii non non ah bos bu waxee rek da ngaa war a noppi bu waxee rek xam nga ne ku may envoyé vocal naan ma ah xanaa doo ma seetaan man may xewi yow yaa téye Sénégal dimbali ma ba doo xewi ah xam nga ne kon kooku kooku kooku <laughs> sa waay ndànk rek ku ne jaar na fi ah man ñëpp fi lan ma fekk ñii bës bës yu ndaw yi ñëpp fi lan ma fekk ku nekk Dakar naa sa ndey nga féete à côté mera gis ngeen ko fi kuti kuti mbaw mbaw xaju gaaraas woo gis ngeen fi ñu bëri Mera génn na fi ah gis ngeen fi pikiir bi vaccin ak kan ak kan man ku ñëw fi may bàyyi fi may fekk te tey la ga waalo gën a aay live yi man maay monté tuunu ndayam loolu la Sénégalais yi def man Adamo maay aj nday live yi ba ay 10 di ko yóbbu ba ay 15000 kat ndayam ba 32000 amul keneen ku koy def man Adamo maay toog ci live ma ne 3 minutes laa soxla 3000 personnes man Adamo maay toog ci live ma ne 2 minutes 5000. am ma morom sa man aw ma morom mais dëgg laay wax affaire bu du soxor ak yàqalaate déedéet moom ngeen war a waxal moom mi jël vidéo jàmmoor yónnee ma ko bu ndaw si wëññeekoo fayu ndaw si bu wëññeekoo fayu sa waay na gaay nan waxante dëgg ah ndaw si wëññeekoo tourné wax ma ay wax fayu ah gaay yi nan waxante dëgg dëgg ah yi nan leen di waxante dëgg <laughs> il faut ñuy waxante dëgg waaw waaw nay ok gars